mbokk Samagal TV mbokk internet ñu ngi leen nuyu di leen ziar di leen wax ni macha allah tey maa ngi fii euh, Pikine ñëw dafa leen benn découverte muy euh, banlieusard un mal boo xam ne macha allah dama ko gisoon ci seb ba mu neex ma lool man tey il faut ñëwoon ko gars yi ñëw seet champion bi nga xam ne naa maa lay fay bu baax Cissé Dia. Mhm. di nuyu bokk internet yi Sénégal TV bu baax baax a baax a allah kii tey dama ñëw seet si la parce que sa mal bi dama ko gisoon ci seb ba. woon ko.

laa uh-huh. si Laay ak Fadel. ok ñoom ñoom ñoom moom ko jox. tey jii bu Laay Fadel ban bëri si euh, ñoo ñoo nekk euh, si ferme ferme Maktoum. ok ñoo fa la nekk quoi. waaw donc bu ma koy recruté grâce a Badiane la. am benn copain mhm. gis ne a ah, am na benn jour bu ma gis fële kat mhm. kaa dem xool ko mhm. donc bu ma gisee tamit mu dugg bu baax a baax daa ko ne kon journal bi du ma ko bàyyi donc si laa ko si laa ko recruté à l'âge de deux mois à l'âge de deux waaw moom nag moo tudd Banlieusard. ok Banlieusard moo si trente mois. Mhm. set bi passé génnoon. génnoon naa waaw indi woon compétiteur quoi compétiteur. ok waaw indi woon naa ko indi quelques doomam. ok ak ay jabaram quoi. ok waaw mais compétiteur woon. nga bergerie bi tudd naan. bergerie moo tudd bergerie Baye Alpha. Baye Baye Alpha. Baye Alpha Baye Alpha waaw. léegi yow lan ba ngay dugg lan nga lan nga commencé woon ba tax nga jëlee euh, Banlieusard ak euh, lan nga euh, choisir. waaw tey jii bu may bu may bu may dugg si élevage boobu maa ngi yor benn femelle. Mhm.

donc mu yor ay ay mensuration doy waar yor benn TP bu doy waar maal duguma mhm. ma laajte fu mu bokk nag maal boo tuddee ñetti maamam ok ay champion kan wax ma ko maal bi mooy nekk doomu raq neex mhm. raq neex doom nekk doomu Espace du Sénégal ak Belfi Espace mhm. du Sénégal nekk doomu Grand Rat Belfi nekk doomu docteur Boy Belfi moo nekkoon euh, meilleure femelle foire Thiès donc bu ñu jëlee doo jël euh, raq ne raq ne ko si nuura. Mhm. benn doom ndigal. Mhm. benn doomu Noël Noël doomu ndigal. donc doo jël fixé ndigal. Mhm. benn euh, doo jël ñaar doomu ndigal bool leen cest ak nuura. yaa donc boo tuddee ñetti maam rek moo la boo waxee boo waxee tey jii euh, espace du Sénégal. Grand Ram Marie Salaay. ok fii boo ko waxee tamit doo wax docteur Boy docteur Boy doomu Boy Séeréer. donc maal bi nekk maal boo xam bu doy waar maal bu maal bu yéeme. te bu la defal production lu si lu la jural si maam rek da ngay final. la lu la jural si maam da ngay final. yow tey euh, loolu nga xam ni xar yi da nga ko toppoon avant nga ci dugg wala mu demee waaw xar yi boo si boo non dëgg la dëgg topp naa xar yi ndax xar moom boo boo si nekk il nga am loolu benn benn benn background boo am ba pare. waaw. donc doo ñëw tëb tëb dugg si. Mhm. donc bu ma si bu ma ma si dugg doon naa lu xam def def samay documentation gis xar gis na xar bu si ne ma topp. Mhm. ku si nekk nag xam naa tamit la mooy la mooy la mooy sa kii euh, la mooy sa point mhm. moo taxoon nag tey booy dug dugg booy ut maal rek bu loo xee tey jii rek parce nga am aussi aussi ay conseils yu baax. waaw si am solo. waaw ndax tamit bu maal bu ma koy bu ma koy recruter nekkul sama conseil rek laa laa laa jël. ok am na koo xam tey mu jiit si élevage. wan ma ko tamit ma doyloo ko.

te ku ku ko gis rek. Hmm. voilà da koy da koy da koy da koy jël. donc am na ay doomu góor yu jox joxe ay ay doomu jigéen yu ma joxe aussi tamit. yoo joxe ah, waaw ok ok tey euh, <coughs> Bergerie Baye Alpha lan mooy ambition bi euh, da nga bëgg kon ne ci maal bi liggéey wala génn ko uti leneen lan mooy lan mooy objectif bi lan nga bëgg def. waaw maal bi moom fekkoon euh, man man dong la day continuer si bergerie bi. daanaka boo xoolee tey jii mal pour nga téye ko lu yàgg si si éleveur bu ndaw il faut nga am benn espace am tamit nombre de femelles. waaw waaw boo xoolee yàgg jël sa boo xoolee sama espace sama boo ko boo kiiaree téye si presque presque ay doomam jigéen. peut boo téye presque trois jigéen rek. donc la amee yow. donc fi mu toll nii moom. voilà daanaka mën naa ne ay doomam jigéen yoo xam ne te jabaram yëpp tabaat na leen ah tabaat na leen tabaat na leen. <laughs> donc kon kon yoonu carte gi mooy gën. <laughs> waaw waaw man nag gisoon naa éleveur bu boo xam éleveur bu mag boo xam ne comme que kii du nga ne doomu raxaneex la. doomu raxaneex la waaw war na war na mën liggéey ci bergerie yu bëri. ah, ah, ah. ah boo xam ne tey war na soxla maal war na ko mën a jël. boo xam a kon ku la fëggoon tey laaj ko war na ko mën a joxe. non allah loolu loolu moom du benn du benn waaw ah, donc partage lu ma partagé rek noonu laay partagé waa ok te dama koy faral wax mhm. maintenant moom fu mu dugg berger bu mu dugg jëri sama xel sama berger bi bu mu nekk daal am na lu mu def mais berger beneen berger bu mu dugg berger bu mag donc gëm naa ni voilà élevage bi na ko dégg bu baax a baax a baax a baax allah eh, xeetu doom ñuy def moom uh-huh. macha allah macha allah vraiment instant bi kon euh, ñaari tënk yi fi am euh, di ma leen woon waaw ñaari tënk yi fi am waaw mun naa leen woon ñaata moo la ñam euh, kenn ki mooy douze mois kenn ki mooy six mois. ok macha allah waaw six ok moom euh, léegi nag euh, après boo génnoon tey lan ngay def lan mooy sax euh, suite lan nga bëgg a def. waaw kon na liggéey bi rek. tey boo génnoon tey di nga utiwaat beneen mal. waaw ah. mal ngay uti wala jeune mal. non jeune mal jeune mal ngay utiwaat. ok tey mu ñëw fekk fii li mu ñëw kon ne liggéey bu moom bu fi bàyyi. ok su defee nga gën a améliorer seen xar. Hmm. donc instant liggéey vision boobu laa nekk quoi. ok waaw ah, instant yi nii mun naa ne benn idole la am si élevage mooy Modou Dramé. ok ah Modou Dramé ah, la am idole ko élevage. waaw donc euh, moom fu mu fu mu fu mu commencé. muñ voilà liggéey. waaw am yenn xeetu femelle yi man na moom laa teg bët. ah ok donc xel mi ci macération <laughs> si macération voilà ah, waaw. waaw jeex na taa ku am ko idole ko si élevage nekk jeune. gëm naa ni di nga di nga a si élevage. mën nga wa dem na ko ben yoon. waaw ah. ah, dem ko ah, en tout cas faaru sama gox bi mom yeugal nako wa yeugal nako na gis nga. gis nga Al bashir ak ak ak. fë eh, fë ñaar ñaar doomu xasee yi ñaar doomu xasee <laughs> mais non la. ah am nga am nga am nga idol mat idol la ah. waaw mm. euh, waaw mu daa moom la. deug la deug la ok macha allah. tay euh Sabira nga mos a wa mu Sabira mo sama premier fois. mo sa premier fois mooy premier fois wa ok waaw moom laa mos a euh, kon nak da nga beug nak legui dugg ci càmm gi carrément. bu baax sax wa bu baax loolaa loolu loolu daal mooy sama yéen waaw fuy fuy dégg yéen éleveurs yu mag yi ma bon ñu dégg ma fa quoi ok donc ambition boobu laa am ok moom boo si nekkee il faut nga am benn ambition am foo teg sa doo doo boo xool bi ma waxee deux mille laa dugg si élevage bi yor commencé si benn famille ba ñaar tey ba yàlla def ñu gétt mel nii maam maal boo xam ne tey ji ñëw na amélioré na samay xar boo xam ne tey ji nu mu mel nii noonu lay def si ay doom boo ko boolee femelle yu luy luy luy luy luy luy lu nekk si moom da ngay bàyyee moom yow ba bay ñëw yokkal. macha allah moom noonu lay juree moom. ok waaw noonu lay juree. ñaari tëngam yi fi nekk kenn ki mooy kan. kenn wala waaw ah, kële mooy kële di génne bopp bi. ak kenn ki nekk nii. kenn ki si si box bi. mooy borom baat bu ñuul bi. waaw borom kële. ñaari jàkkaarloo la. non non waaw ñaari jàkkaarloo noonu. ñaari jàkkaarloo waaw ñaari jàkkaarloo. kële mooy kan raadu doote boobu doote boobu. kële kële mooy màgget. ok ñaar mooy màgget mooy si douze mois. ok waaw ñu ñaar ñaar doom yooyu. waaw ñaar doom yooyu macha liggéey bi rafet na champion. jërëjëf. Euh, nga ni ñu tuddati. banlieusard banlieusard. waaw mi ngi nii mbokk Samagal TV euh, man gis naa ni war na mën a liggéey ci bergerie bu mag. Mm-hmm. Ah, def fa ay doom. Mm-hmm. képp euh, kon war nañ ko mën Euh, ba baaxee gars yi képp koo xam ne yaa ngi seetaan Samagal TV gis maal boo xam ne euh, gis maal bi war di ko sa bergerie war nga mën a contacter saa waay. incha allah mu jox la ko. waaw waaw ah? loolu du <laughs> kon kontaan nañ. Euh, <laughs> ñoo gën a bëgg ni ñu ngi xaar suite bi suite bi. incha allah incha allah lan lay joxe. incha allah bu neexee yàlla gars yi gis maal bi boo defee nga joxe numéro adresse rek. waaw man maa ngi dégg Pikine Talou Bess. ci bi exactement. boo ñëwee ba ko ñu Ama Baldé boo ma woowee naa la naa la naa mhm. donc numéro téléphone bi nekk 77 814 83 16 waaw Bézér mooy tudd Bézér Baye Alpha waaw mhm. ah, Baye Alpha sama papa laa ko tuddee ok macha ah, allah moo tax ñu bëgg xar yi ah moom euh, bu ñu génnee àdduna ñu am Bézér yi donc moom ñu jox ko tur bi quoi pour rendre waatal ma ko côté côté papaam côté papaam mooy Rakk Neex mhm. Rakk Neex doomu Espace du Sénégal ak Béfi Espace du Sénégal nekk doomu Grand Rane. Mhm. ba fii nekk doomu Docteur Boy Docteur Boy doomu Boy Séeréer. macha allah waaw ah, yaayam nekk Ndoura fii sa ndigal. ok boo jël ñaar doomu ndigal boole leen yaayam tudd. macha allah ah. yaayam. waaw ah, yaayam moo tudd Ndoura. Ndoura Ndoura waaw. ok fii sa ndigal quoi. waaw fii sa ndigal la macha euh, rafet na. Mhm. Euh, kon euh, mu mi ngi noonu. kon ñu xaar la fan euh, est-ce que yaa waaj a génnaat wala da na ma xaar set am na yeneen foire boo xasee génn bu benn yoon boo ñëwaat déwén da a indiwaat leneen waaw donc maa ngi waaj ah, kon set bi ba nga na mu dem nga koy remplacé ñëw waaw waaw ah, yàlla baax na incha allah incha allah kontaan naa baax na maa ngi gën a kontaan si ah, di bëgg ci ñu wax ni moo ko gaal yi baa li zaare mhm. peut-être euh, léegi léegi léegi benn champion jël ko def si transfert. incha allah <laughs> incha allah kontaan naa kay. maa ngi rëbëg. jaajëf maa ngi rëbëg si